أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ورضي الله عن شيخنا الخديم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدل del si في السلسلة yéen ci silsila في الفكر الصوفي fi lfikri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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكل الفصل ñoo ngi زيارة ziyaara di كي أجلك yéen لك àggaleeg كي démb خلنا ما téere أصحاب nga الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة دي تالف كان في طلاب العلم di Mouhamed Ahmed Lo ginnaaw boo xam ne démb lañ doon leeral ak di ko munaqasha mooy li waaj waxoon ci wàllug al isma ñëwaguñ nag ci ginnaaw ginnaaw boo xam ne leeral la mooy al isma ci ci làkkin arab ak arbu wax yi nga xam ne moom la waaj wax ci waaj bunt bi waaj nag ay waxam jeexagut yeneen si def nañ waaye juraay tey bi lii moo ci ay waxam waaye leeral leeral nañ ko ci leer nañ ne loolu tuuma ju rëy la xam da ko teg seen kaw te tuuma ji la ko waral mooy ñàkk dégg la ñuy wax ak ñàkk dellu dañ ca lañ mooy lan fekk leen jëfandikoo al xisbu ñu naan al anbiya maasumuun yonent yi ñoom doon am isma bu dee yàlla ñoom xisbu lañ am ni ko Sëñ Tuubaa leer ci Masaalikul Jinaan ne al awliya ñoom dañ leen ñoom seen isma gi waajiba la bu dee bu dee bu dee ne al anbiya seen seen isma gi waajiba bu dee al awliya nag moom ah, isma nekkul waajiba ci ñoom waaye xifz ci moom moom lañu am te loolu alquran euh, loolu xifz gi nga xam ne moom la sunu sunu borom tabaraka taala di sàmmee gaañi gaañu baax ñi ak wàllu gi loolu dafa sax ci alquran dafa am ay reen ci alquran am ay reen ci sunna si Ibrahima salaam am ay lecc bo téere ba raxna waaye tamit kadalika am ay reen ci téere yu sëriñam moom waa ji borom téere bi kon leeraloon nañ leeral nañ ci ne kon loolu tuuma ju rëy ginnaaw boo xamee ni itaan nañu ay ñenn ci ñenn ci kànge bi tafaw fii li ma si aju Qajalaan ak al imam Xasaali kadalika al Qushayri ak al Kalabaati ak Ahmad ibn Muhammad al Makki ak ñeneen lu ñoom ci kànge bi tafaw yi nga xam ne radd nañ tuuma jooju yi leeral ci ne képp koo xam ne dañu tuumaat ci wax na ñoom dañoo gëm ne seen awliya maasumuuna leen mutlaqan comme ni sax yite loolu loolu wax ci wér tey jii nag dañoo fas kee ne ñëw ci li waaj jaawale day fas ci ñaari tomb tom ñëk moy li waaj jaawale moy la moy al alxifd yi ñëk sharh la moy al alxifd pare manam leeral al isma leeraloon ci al isma ci lugal arabia ci ndey ñëw ci juróom maanan comme ni ibn manzur di leerale ak kadalika ibn al athir ak ibn faris ca mujam maqayis lugha alayhi rahmatu rabbil alamin kon di ñu leeral la moy xifd gi al tasawuf di wax ndax ñom la ci jiblu moy al isma wala ci jiblu moy xifd amna menen meneen maana mooy ci jiblu لا شك ان الجيجان بيحب اك عتمه دانيو ام اي اي فروق كثيره جدا في اللغه العربيه كي لكن ربو استقراء مو إيه، إيه، خولك معاج ولا ما قايسي كي داك شنو رياقيه يمن العيد بو خالد الاحمد فراهدي ولا جمهرة اللغه بو ابن دريد ولا لسان عرب نبي منظور ولا الصحاح للامام الجوهري تغاجي تصدق انت عثمه اك حفظ امن دفاع واد واد نك غير متومال غاني عثمه غير متومال غاني عقيده عثمه فاولي جيما tawfiq diggante al isma wal xisb ne force benn la fu ñu waxee isma xisb rek jublu fu ñu waxee xisb isma rek jublu loolu bokkuñ dañoo am ay dañoo am ay furuq xanaa kay isma daa bokk ci maanaa yi mi firi mooy xisb waaye dañoo am ay furuq isma day firi yeneen yeneen juróom ma yeneen ñeenti maana yoo xam ne bokk te xisb kon loolu mooy teqal ñu ñaar ala ko li leeroon nañ ko démb tey jii nag li ñëw mooy xisb gi mooy lan ginnaaw boo xamee xisb gi ahlu ñu ne ahlu tasawuf walu yàlla yi ci jëmmam suñu borom taala leen sàmm ñoom ay maxfuuduna lañ kon euh, xifb ji lañ fekkee ne charx lan mooy lan lan la ci ëllëg tasawuf jublu danañ ci ànd ak ñaar si Abdul Qadir ak Kusayri yi leeroon nañ ko démb buñ ko leeralee par nag bu ko defee nag ci la ñu doog a nag lañ bët alquran sunna ba xam am na ay dalil yu tekki euh, xifb googu noonu am na dalil wala amul dalil da nga am na dalil ci alquran ak sunna danañ ci tànn lenn rek ànd ci waxi borom xam-xam bu ca paree leeral ci ne loolu ëllëg tasawuf di wax loola du ahlu tasawuf dong waaye ahlu sunna ñoo koy wax ci jëmmam gannaaw ahlu tasawuf loolu ñuy wax moom xisb googu ñuy wax mooy isma nañ jàpp ne kon Muhammad ibn Salih ibn Utaymin ak Muhammad ibn Muhammad Muhammad ibn Muhammad ibn Salih al haydan wala Salih ibn Muhammad al haydan wala Salih al-Fawzan wala ibn jabir nga xam ne ay kàngam lañ ci kàngamu ad-da'watu salafiyya di ci tayf ay téere surtout ibn Utaymin rahimahullah nañ nañ jëm na ñoom dañoo bokk ci ahlu tasawuf gannaaw képp ko xam gannaaw képp ko jàpp ne diwu mahfuz rek yaa nga jàpp ne maasum la dañ jàpp ne ñii ñun kazalika ay suufi la ndax ñoom dañ ko wax dañ ko saxal seen téere euh, bu ñu paree ñëw ci tadlis yi xam naa foofu lañu jaarale foofu la ñuy daanale yëf yi tadlis yi nga xam ne moom la waaj def ak dagg yi nga xam ne moom la waaj def ak taxrif yi nga xam ne moom la waaj def euh, ak xeetu xamlu nusus bi ma la tutux di waaj def bu ko defee li njëkk di mooy la mooy al xifbu pare xifbu mooy lan dëppoo nañ ñu ko alomrati dëpp xeet yëpp dëppoo nañ ci ne al ambiya maasuma lañu كذلك أهل دفع يبقى لبقى نجينا عثمة جينا خلنا ما يقال عثمة المطلقة كوكو يرون دي كيف كام أه، ورأى العثمة الشرعية العثمة المطلقة يالا كيف كام وهي العثمة الشرعية يرون دي كيف كام ذروق نمكن حيث قواعد التصوف مواني بوك نجي بطف التصوف موي العثمة الشرعية كوكو يرون دي كيف كام يولي يالي أمنك أه، ليه يوم دفع لما يقال حفظ حفظ نك تجمع مشي عبد القادر يرون دي كيف شرحه ما ندندش شعب شرح موقف وشيء مبدي آداب السلوك في التوصل إلى منزل منازل, منازل الملوك منازل ملك الملوك سعد القادر الجيلاني نانا بواقي نانا والأنبياء عصموا عن الهوى وبقية الخلق من الإنس والجن المتكلفين لم يعصوا منهما غير أن الأولياء يحفظون عن الهوى والأبدال يحفظون عن الإرادة ولا يعصمون منهما على معنى أنه يجوز في حقهم الميل إليهما في بعض الأحيان ثم يتباركهم الله عز وجل باليقظة برحمته في عبد القاري يعني شرح نحيف في جهة القصول أقل لك جبله في عبد القاري يعني اسم لي يرد أن يقام وين ينك نيب ولو يالي أمنك في عبد القاري يعني الأولياء يحفظون عن الهواء كل ولو يالي سنبرم تتعلم لأن سامك لأن خانا ما يبان نيخ maanaam sàmm gi mu sàmm ci baan tekkiwu ne am banneex waaye la nga xam ne mooy muqtada yaatul hawa xam nga yàlla sàmm la ci bànneex mooy soxsu tabia déedéet waaye léeg-léeg li ci yoon mooy muqtada yaatul hawa mooy li ban bànneex ginnaaw bànneex am na bànneex la muy liggéey ci doomi aadama fa muy jëmal doomi aadama loolu yàlla dañ ci sàmm bu dee ñi nga xam ne ñooy al abdal nga xam ñeen lañ ab kuréel lañ ni ko Ali ibn Abi Talib waxee bi isnadin jayyid ni ko Ibn Asakir netalee الباني تحسين سند با تحسين الباني مو ديسي سوكو ديكو وعلى وجه الالزام كينا الابدا خمنا ديسنا كينا بو صوبيان يعني في دو بربام الابدا ليا شيخ الاسلام من دا بوك سي كوريل اهل السنه كوريل بو نيوخ الابدا مان اي الابدا لم دال يا سن بور دالين سامو سي اراده لا موي اراده موي اراده غير الله تعالى نحن تصوب سين اصلاح حاجه فوني فيكو boo ko firiwul rek de mën nga cee bañ maanaam mën nga leen a tuumaal def li ñuy wax xam lu musulmaan tuddee yenn seen wax loo xam ne attanu wala eh, daa ko yenn ci maxaame yoo xam ne wax jëm ko woon loolu daal day dugg ci day ci biir li ñuy wax taxriful kalima an mawaadihi kon si Abdul Qaadilaani lab daal ya suñu borom da leen a sàmm ci li ñuy wax iraada iraada mooy lan mooy ñuy am xëy na def ci leneen lu dul yàlla. waye nak sam gi len sam nak mu ne nak wara yu asabu min waaye waaye yalla nak muccelu len ci muccelu len ci moy lan garanti lu carrément lu ñu ko def mukk da lañ caa sam sam gi mën nek ay manam yu ëpp mu ne nak mu daa koy gëna fi mu daa nek ala maana annahu yuzu fi al-mayl ilayhima se abu qayyalan dan nak lañ jublu ci sam gi moy dagan na ci aqi wàllu yalla yi moy ak ak labdaal yi dagan na ci seen aq ñu jeng jëm ci banex ñu jeng jëm ci bànneex nga xam ne dañuy jeng jëm ci bànneex fii baad al axyaam léegi-léegi waaye nag la mooy xifd ga boobaa xifd ga mooy lan mu ne summa yatadarakahumu allahu azza wa jal bil yaqaza suñ borom day da leen dab dabaatal gaaw leen rek yee leen benn mu tàbbal seen xol loo xam ne moo moo leen wàññi wala mu fàttaloo leen ko wala daal mu dogal loo xam ne mooy dox seen diggante mooy yàlla ga mooy dox seen digganteeg def bàkkaar ba ñu bëgg mooy dox seen dekk la bànneex ba di sàkku ci ñoom suñu borom ci ci sensé rek ñaar ya bu fekkee ne waa ji da nekk daa bokk yàlla daay wala mbokk ci wàllu yàlla yi suñu borom suñu borom toog ci aada waa ji ne léegi léegi jéngi jëm ci bànneex dana ko dal mel ni e, jéngi jëm ci lekku sàngam wala jëm e, jéngi jëm ci bànneex léeg-léeg mu dal ko jéngi mooy li li nga xam ne da koy xelal ci xel mu te defu ko mag ngi jëm li yàlla wax ne wa maa ubarri'u nafsiya inna nafsa la ammaaratun bisu nga xam ne bakkanam da koy digal rek waaye dafa gudd bu ci jàngee nag lan mooy xifz ga xifz mooy lan moom suñu suñu borom taala day dox diggante mooy yàlla ga fi baadil axyaan mooy yàlla day dab dabaatal dox ji digganteem ak xafla gi ko yedal foofu xam nga nit ki buy bëgg def ban buy bëgg def ab bàkkaar wala bëgg a tàmbi ci ak bànneex foofu day am xafla gu koy muur lëndëm goo xam ne mooy tàmbi ci xel mi mooy dox digganteem ak yépp jaj fofu nak graf la bobu ci mom la da ko yegati indi ko yàqasa mu delu wat ci borom taala li moy xifdu mbokk yi li rek li rek mom la sun borom taala sax wax ci la yene innal ladhina taqaw idha massahum taifum min ash-shaytan tadhakkaru kharan fa ida hum fa ida hum mubsirun mais gars yi ragal yàlla deug ba ag ci darajay wilayatul xaasa ñom leegi léegi-léegi bu bu manam bu leen bu leen bu len seytaane xawé man bañu ñu jeng bay bëgg def mbir ma suñu bopp taala da leen manam da leen dënd watal ñu wëlbati ñu wëlbati ci sansé ci tafsiru ñu ci maanaam ci ni ko jumhur mu fa jumhur mu ni tafsiré inna alladhina taqaw idha massahum taifun min ash-shaytan tadhakkaru fa ida musirun kon mbokki al alxibbu moy lan moy suñu borom suñu borom taala da lay fam bo na a lu ko lu ko neexut wala nga nar a lu loo xam lu haram la wala nga nar a seetaan loo xam lu haram la wala nga nar a jëf ci say loxo wala say tànk wala ci say cër loo xam ne lu xaram wala nga tàmp lu xaram ginnaaw yoo xam ne seytaane mën na la nga xam ne yow rek yaa ci des suñu matu saara dogal ba sàmm ba dox sa diggante ak moo xam day sàmm na ci yow li ñuy wax yaqadatul qalbiya wala mu ilham la wala mu sànne ci yow jenn laay yoo xam ne day jékki-jékki ne yar ci sa ci sa xel wala mu fàttaloo la mu am lu mu dogal loo xam ne mooy dox sa diggante ak mbir moom wala mu lottaloo la sax far maanaam yow bëgg nga ko def waaye nga ko mënut bu doon fooy bu doon fooy doxal def bàkkaar mu mu lottloo ca tànk mu mu teg la natt ak xeet bu ko suñu borom mën a rek waaye daal lay wax sa diggante mooy yàlla ga loolu mooy xefs ga si Abdou Khadre nee na lu ëpp loolu nag lu ëpp lay am nag waaye tekku ne dañ koy garantel comme ni ko garantel yent yi kon lu ma maanal xifz kon kenn ko al Qushayri moom it mi ngi sharx la mooy maanal xifz Qushayri nee wa amma an yakuna mahfuzan xoolal xatta la yusirra ala dunub لي واجد إن حصلت آفات أو ذلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم نانا من حفظ جيخان نمو يحفظ الأولياء لن تجيب المو يمو بني نور كي بكار ما نمكن دقا يجيس نسيح بقى جلال مو من نمكو فيري مويلن موي بو نار دك بكار لي أب لي أب وحنا رخي أمو تناقض كلا وحنا لي أب سنبرم بلا مو تاكا بسنبرم يدو يخلي قدم كلا نمكو تعرفي موي لاجي لاجي بو تاكسي بطابي ndax suñu borom da koy nat mu continuer comme comme ni me dara julli ñu bari wala suñu borom day gaaw dogal ci mom yënkal ko mu tuup du nuru ci bakkar mu mom leg leg leg leg man na caa tàbbi man na ca tàbbi bakkar bu ndaw rek waye du ca nuru mu mu mu kon nga gis ci si Qadir ni mu ko ni ni mu sharh al xisbu moy li ëpp ci ay waxtom li ëpp ci dundam bal mo tàbbi ci bakkar ci rek suñu borom dox digganteem kon amna amna ak digënde so diggante soo mu tàbbi ngir ay xeex ma yo xam allah a'lam biha léegi digënde yoy nak mom la Qushayri ñëw daal ne diggante yooyu bu ci tabbe nak lay xib ga moy mo bañ ca mo bañ ca sax mbokk yi lii lii rek moy xib waji bu fekkoon ni comprendre comprendre ni ko ni ak top istiqra kalam sufiyya ci buntu bi boba man na man na mu bu fekke ragal ragal borom taala wa ak amana ilmiya ak insaaf ma nga fa waaye loolu moo tax mu jar mu fekk baatu xisda mu ne xisd googu mooy isma mbokk yi li mooy alxisd bu ko fi nag ndax lii am na dalil ci alxuraan wala sunna wala déet kon mbokk yi loo mooy alxisd léegi nag ndax sax na ci sunna si tuuti salaam ak ci ak ci sharia daa gis na sax na la koy takkal mooy xadisul wilaya xadisul wilaya bii nga xam ni adiya u salafiya dañuy faral toxal waxi benn borom xam boo xam ne dañuy wax ni lawla haybatul jaami la daafahu bu taxutoo nag li ko alimam Buxaari génne ci aljamiu saxiix bu soxtoon xadis bi nekk gi nekk saxil Buxaari kon naaw sa daif kon nag gis na kon hadith bi manam xussatun fi huluqihi ak fotlu gu métti ci ci seeni bëri legi nag hadith bi ci jëmam boko jangati nga xamni borom bi taala day wax ni jaam bi dana ag jaam bi bu xasse ba nek ba am wilaya ba ak ba nek ak wali wali wilaya khas nak mo tax ñi wax boba may nek ak déggam nek ay nek loxom nek ak tànkam xolal liko borom xam sharxa sharxa di borom xam sharxa Euh, dama koy xaj ñaari xaj xaj mu jëkk mooy ñi nga xam ne ñooy éserñam خورا بك شرح كيف تجيك بإبن عثيمين إبن عثيمين نيرا ويبي شرح أربعين فاس كتنا ويت نيرا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله نيرا قوله صلى الله عليه وسلم كنت سمعه خورا من من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل فما معناه إذن من قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل آه، وتذكر ولاية الله عز وجل حفظ سمعه فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل من وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله من وقيل المعنى من وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله ويكون المعنى لما أي وخمك من ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما, فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش وهذا أقرب أن المراد تقديد الله العبد في هذه الجوارح ابن عثيمين هنا معنى حديث بي كنا خمنا الحديث بي ni ko yàlla waxee ne ko تنم لك نيلا te بل nag ñoo la wax na ابن عثيمين dañ بوكي لم a بوري بشي bi ibnu usaymin الشرح العقد الواسطية اك شرح الأربعين آه، اك كيربي بري آه، القواعد المثلى في شرح آه، صفات الله وأسمائه الحسنى عليا طيب كيف من ليس على ظاهره في ممنين ليس على ظاهره رجل من لي طب تناقض ولا لي تي إما عتيبي نانا معنى حديث bi مويرم جام به jaam ولو bu nekkee wallu yàlla boo sunu borom moo koy sàmm sunu borom ci jëmmam mooy moo koy sàmmal ak noppam ba du def bàkkaar moo koy sàmm moo koy sàmmal ak gisam ba du def bàkkaar moo koy sàmmal ay loxoom ba du def bàkkaar moo koy sàmmal ay tànkam ba du def bàkkaar yàlla moo koy tawfeexal feexal koy tawfeexal jaamu yàlla waaye da koy sootle ak mooy borom taala léegi léegi da Qushayri wax ahlu tasawuf li ñuy wax alxilm Ibnu Usaymin nag nee na lii mooy bu fekkee ni li xusey gi wax ahlu ahlu tafawul yi wax mooy jàmbi bi suñu borom da koy sàmmal ay léppam yi dox digganteem ak mooy yàlla yi nga xam yàlla bu dox toog jàmbi yàlla rek lay def bu fekkee loolu mooy isma da ngay gis ne kon gaa ñi dañoo saxal bu fekkee loolu mooy al isma te loolu al xibsu képp la ibnu usaymin moo saxal na ko ci page 412 nee na إذ أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله أي في كل حواصه بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل وإذا سمع انتفع وكذلك أيضا لا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله وإذا أبصر انتفع كذلك في يده لا يبطش إلا بيده إلا إلا فيما يرضي الله وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع وكذلك يقال في الرجل في موجد الأخ ابن عثيمين نيرة نعم. معنى حديث مويل مويسون برب بجي جنب بجنب أجي في ولاية من عادى لي وليا نك ولي ولي بسون برب نكوي نكوي سمل نطم xolal mu ne fi kulli xawaatihi lépp loo xam ne ay cëram la yoo xam ne da cay mën a amee xam-xam da cay da ciy centré moo lu mel ni bëtam du ci def bàkkaar lu neex lu neex yàlla képp la cay xool noppam du ci déglu bàkkaar lu neex yàlla képp la cay déglu tànkam du ci dox jëm ci lu xaraam lu neex yàlla képp la cay dox wala lu farata loxoom du ca ngëpp wala mu ca yëf lu bàkkaar lu neex yàlla képp la cay jëf nee nag nag cëram yëpp yàlla yàlla yàlla da cay def li ñuy wax ak sàmm yàlla da koy sàmm ba di ngi def benn bakkaar subhanallahi alazim li nga xam ne moom la ahlu tasawuf di wax moom la moom la ad suyuux adiya salafi di wax benn kiif kiif benn la ndax ñee dañuy wax ne yàlla da koy sàmm dox digganteem ak jaam yàlla waaye moom ibnu asima dafa ne day sàmm léppam moom maam lépp lu wér day neex yàlla day dem ba xam ne lépp lu day moom du def donte nag moom li waxul na dañ koy garantel waye nimu waxe sax mo gën mu baala xam Cheikh Abdou Qadir Jilani waxe kon bu fekke ni kon liñu ñu li arab waxe min famika udinuk li nga xifd gi xifd gi ahlu tasawuf di wax waji ne xifd gu mooy isma ci xifd googu non ay sirri ni go saxal dañ go saxal ne wàlli bi ci jëm bu ag yàlla yàlla da koy sam ko kenn la keneen a ngi nii mooy Salih Salih ibn Muhammad al-Luhaydan ci téere bobu de Sharh al-Arba'in an-Nawawiyya rahimahullahu tabaraka taala tasaalim xamd alluxayla nee na boo àggee nee na moom boo àggee moom li wax ci jëmm moo gën a sax ci Abdou wax ci 132 يقول فإذا يدعي طلبه فإذا أحببته من ما نتيجة تقرب العبد لله بالنوافل أن يحبه الله دقل المنى ومحبوب الله جل وعلا يصان عن الإقدام على المحرمات والمحظورات ويصان أن يتعلق بالأمور الدنيوية بحيث يقدمها على أمور الدنيا نانا نعم. نتجي وبنك ولا بنك صوت برمسة على بأجج درجة نحن ما قالوا خاصة صن برمسة على دكوي دكوي نيونغ دكوي سامو بدو دوبوتي بدو في الحرام أكيد نحن لين كوتره ما خم يحرر يسبي صن برم دكوي سامو waye yam ko way neena sun bom da koy sam sax ci mbiri aduna yi nga mbiri adduna yi amul jëriñ suñu borom da koy sàmm ba du ko ba du ko ji ba du ko jiital ci kaw ci kaw ci kaw adduna kii kenn ci suyuxu daawa moo ci Saalix al-Luhaydaan nee na wàlliw bi bu àggee ci daraja al-wiraasatul xaasa suñu borom da koy sàmm ba du tam ci lu xaraam waaw ndax bu waa day wax ne kon kii li mu bëgg wax mooy wàlliw bu àgg bu àggee ci wiraasatul xaasa moom day nekk maasuum maanaam li ñuy wax dóor dóor doom làq doom maanaam da ngay laq yoog dóor do manam même li ahli tasawuf di wax ci maanal al hifd loolu la suyuxu dal suyuxu salaf yi di wax neena wàllu bi bu agge fofu jëm suma ma da koy sàmm du tàbbi ci lu haram du tàbbi ci nga di ne sun koo sib suñu da koy sàmm sax mbir adduna sax yi nga xam amul jariñ suñu borom mën na ci sammu ba du ko jël ci diine wax laa gi nga xam da haram kon ko kenn ram bu fekke ni wax ni wàllu sun suñu borom taala dana ko sàmm dox gëndew yu bakkar yi du ab yéen waaye ab wàllu dong la waaye sun borom moy dox di gëndew ak bakkar yi wax bu fekkee wax loolu ci jëmam wax loolu wax loolu wax ne loolu xibbu googu mooy mooy xikma nañ jàpp ne ñii dañu jàpp ne wàllu nit dana nekk xikma ko leen yonte nañ jàpp ne kon loolu dañoo sëngal te suuf rek waaye ñii ñoo ci njëkk kooku benn la keneen a ngi nii mooy ibnu jabrin ibnu jabrin mooy al allaama abdullah ibn abdurahman ibn jabrin ibnu jabrin ci téere bu mu tuddee charhu arbain ابن جبرين كان لك شيوخ شيوخ الدعوه السلفيه واجيتي سبع اربعين نانا معناه ان الله يسدده ويحفظه بس حزي اللي جفلكو في سمعه وبصره ويده ورجله ولا يباشر بهذه الجوارح معصية من المعاصي وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل تباس في البنانة معنا حديث بمويلة نسل مرم ونبكي بأجل يليه ولاية خاصة نك ولي على جهن دائم ولاية خاصة suñu borom ci da koy da koy sàmm sàmm gi ëllëg wax moom la moom la fii neen su ma da koy sàmm da koy sàmm ci lan day sàmm ay noppam du ci diglu xaram mukk day sàmm ab gisam du ci xool xaram du tàbbi ci bàkkaaru gis du tàbbi ci bàkkaar boo xam ne loxo koy def du tàbbi ci bàkkaar boo xam ne tànk koy def mu teg ci nag wala mu ne wala yubashiru bi halil jawaarih téeréem yii suñu borom da koy sàmm ba du ci def benn bàkkaar ci mooy yàlla yi maanaam yàlla da koy sàmm ndax boobaa boobaa dañuy wax ne ibnu jabrin moom nee kon wàllu xam nga la fekk du ko wax waaye nag bu dee ab suufi ma ko wax mu ne gis nga seen seen xifdu gii ñuy wax nag ay suma la ci jiblu comme dañuy wax ne diw daal maasum la moom daal lu mu def noonu la di def bàkkaar wala taabi ci njuumte kooku benn de ibnu jabrin ci page vingt trois ba tey mu ne wa maanaahu أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه باط التوفيق بالقشير تدو توفيق, توفيق العبادة وتوفيق الطاعات واي قشير تدوك تو بان تو لي مو توفيق بوك ميم مام اي سيرين اندي فيدوك ابن جبري ومعناه ان الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وتصديره وحفظ جوارحه من كل محذور لان الجزاء من جنس العمل لما حفظ اوامر الله حفظه الله والله تعالى يقول ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون معنى حديث بي ما يسون برضو غير التوفيق moy da koy dëppaleeg jaamu yalla ya su mom day dakoy sam sàmm xoolal ne wa xifdu jawarihi min kulli mahdur yalla cër wal yalla ya day sàmm cëri walew yi ba duñ tàbb ci luñ tere maam day jël luñ tere mukk yalla ya dakoy sam day dox sen diggante def bakkar day dox sen diggante def def tek wuñ ne nag bu di ahlu sunna buñ ko xana waxu xawma na ki lan nek jublu wa ahlu buñ ko xamee tek wuñ ne koko da jom ci mom tek wuñ ne it mucc ga muccum gogol war la déedéet daa nekk jaay isa rek ta mucc go xana ja jaay moy la العصمه الواجبه رك موم نك موي العصمه الشرعيه كون كان نغي موي ابن جبرين موميت بوك نا سي ا آه، كون كو موي ابن جبرين ا آه، كذلك شيخ صالح حوزان شيخ صالح حوزان ا آه، موميت كيفاش شرح شي تي تي بو ديم تيري موتلي شرح الاحاديث القدسيه لكن هنا والمعنى أن الله تعالى يحفظه فلا يسمع إلا ما يحبه الله ولا يستمع إلى الحرام لا يستمع إلا إلى الطاعات لا يسمع إلا إلى الخيرات يحفظه الله بجن بار حفظه يحفظه الله ويصون سمعه فلا يستمع غيبة ولا يستمع نميمة ولا يستمع أغنية ولا يستمع كلاما باطلا ممم xam naa nag maa ngi jégalu wax ju njëkk ji li ma ci ma jóge sànq kooku mooy kooku mooy waxi waxi Fawzaan waaye kii ma toll ni mooy waxi Ibnu Jabri waaye ñaa ñëpp ñoo bokk sax téere bi ñu sax wax ji ma jóge sànq mooy waxi Fawzaan kii ma toll nii mooy waxi Ibnu Jabri maa ngi koy jégalu afwan euh, wala mu ne Ibnu Jabri Ibnu Jabri nee na wala yastamiu istihzaan bal yaxfadu lisaanahu xoolal mu ne sàmm gi bal yaxfadu lisaanahu yàlla sàmm lamiñam dinaa ko firi wa yaxfadu sam'ahu ويحفظ بصره فلا ينظر إلا ما يعتبر, ما يعتبر به لا ينظر إلا إلى الطاعة نظرا إلى ما ينفعه وما يفيده ولا يبتش بيده ولا يعمل بيده إلا طاعة محبوبة ولا يمشي برجليه إلا ما هو طاعة أو ما هو مباح أو مفيد هذا معنى قصبه يسمع به يسر قال ابن جبر نانا نعم. معنى حديث ما يسون بروم ليس سام والو بي حفظ جي الله سو دي wax mom lu wajj wax دو da koy sam ba maam su borom sàmm du tàbbi ci bakkaaru diglu moom bakkaar boo xam ne nopp koy def du du tàbbi du du du diglu lu xaraam du diglu lu mel ak jaamu yàlla mu ne ne ko yaxsabuhullaa yàlla koy sàmm waaye suuna sàmm yàlla koy sàmm dal koy ñoŋal mu ne bal yaxfadu lisaanahu bal yàlla day sàmm làmmiñam maanaam bakkaarub làmmiñ yàlla da ko ci sàmm ba du ci tàbbi bu bu fekkoon ab suufi may wax dama naan yàlla ci sa da koy sàmm li ëpp yàlla ko ci sàmm waaye nag tekkiwu ne sàmm ga loolu waajiba la waaye nag comme que damaa damaa nekk ci ci anam ak iltihab mooy li ñuy wax min min famika udinuk mooy ci ci ci say ci say téere ak sa pas-pas la laay sukkandiku loolu arab la moo tax dañ ko itlaq mu ne ibnu jabir nee na bal yaxfad lisaanahu yàlla day sàmm aw làmmiñam wa yaxfadu sam'ahu xifdaga bàkkaar boo xam ne nopp ko yàlla koy sàmm da ci sàmm wàllu bi wa yaxfadu basarahu boo xam ne bët ko yàlla ko ci sàmm day dem ba nga waa ji du xool lu may lu neex yàlla du buy xool lu benn la muy xool da da cay jànge wala mu jëriñoo ca wala bu xool waaye daal suñu borom da koy sàmm ba du tàbbi ci bakkaar juróom-ñaari cër yi muy alxawaasul xamsa wala alxawaasu sab alxawaasul xamsa ak yeneen ñaari cër yi ni ko suñu tubaab di leer rek ci jawharu nafis fi aqdi nasr al axbari al rais bi def bakkaar yàlla ko cay sàmm kon ñeenti kàngam yi nii ci kàngam yi adiya usalafiya mooy Mouhamed ibn Salih ibn Uthaymin abi Abdurahman صالح الحيدان رحمه الله إيه، فوزان يعني بكون في يجب تصرف يجينا تر يجينا تعصب برفر له مو يجينا تر بو خول اي تيرم لا يجي نينك نينك برفر له تيرم بو بدي التعليق اتحاف القارئ موم دا توما اهل تسو كينا نيوم اي نيوم تي جيمم اهل تسو فري جيفن كو لي وخال لي وات مانام لو غور غور سي ولا ياس بالله تعالى لو لو لو لن يك انا لو لب غيسغا ci bunt bi ngir radd waa ji faaw ñu jëfandikoo kadaalika ibn Jabrin kenn ñoom euh, kon foofu li ci lañ fay tiire mooy bu fekkee ni euh, lañ fay tiire ñaar la mbir bu njëkk mooy kon ni ne bu lu sax lu sax ci sunna maanaam nag du caagee ne sax ñoom sax ci mooy li ko gaañ li ko addi ay sarf mën nañ ko wax te du sax waaye xadis bi jëm moo ko saxal ñoom koy seen prime daa nekk prime mu jub kooku benn la beneen bi ci jàkkaataate mooy bu fekkee ni wax ne wali yàlla maxfuuduna lañ loolu mooy wax loolu ku ko wax wax nga ni maasumuna lañ kon nañ jàpp ne ibnu utaymin mucc ci aqidatul isma fawzan mucc ci aqidatul isma صالح بن محمد الوحيدان متى تعقل العتمة كذلك ابن جبرين متى تعقل العتمة يي نانك الدعوة السلفية كون بوبا اك فين كو لولي لاي دون سي منهج بي كو لولي بي تك موي واخ غاي واخ واخ ويرو بو كو ديفه ني نيو سي ا اهل السنه والجماعه نك won déggin lañu am ci hadith bi euh ak nit ndax ñoom dañoo dëppoo ahlu ahlu tasawuf ci ci ne walu yàlla dañu dañ leen mahfuudoon la ci def ak yéene ñëw bu ko defee mbokk yi ñu ñëw ci lan mooy taxawaayu ahlu sunnati wal jamaa'a ci hadith bi ak lan mooy taxawaayu ahlu sunnati wal jamaa'a ci xifd gi nga xamne ne moom ahlu tasawuf di wax da dangay gis ne ahlu tasawuf bo gisee naa ñi takal diggante ahlu sunnati ak ahlu tasawuf loola ci maqam bi ñi waxira waye ci deug deug tasawuf da bok ci bir kuréeli ahli sunna yi ni ko alimam Baghdadi di waxe ci al farq bayna firaq kadhalika ar-razi ci arrazi al firaq al muslimin wa mushrikin ak al israil ibn muzaffar ak ñene ñu ñom ci waram xoxami ak al ak alimam Shatibi al muwafaqat fi usul sharia bi waxe ni ibara bu siiw bobu ta nga xamne jarna jarna di jarna di yir jamono ji nek moy wa hum bi ittifaqi ahli sunna safwatullahi fi lxaliqa al imam Shaatibi daa nekkoon ku tar lool ci bidaa nga xam ne adiya salafiya buñ bu ñu taarif bidaa wala ñuy wala ñuy def ay tafsilaat ci masalatu bidaa ci moom la ñuy dellu ñaar ba ñett ñu ne al imam na Shaatibi moom yi nag ànd ak loolu lépp tasawuf ci jëmam Shaatibi neen ahlu tasawuf ñu ahlu sunna dëppoo nañu ne ñoo bi tabaraka wa taala ala ko ala ko li al kon li tax ñuy teqal diggante sunna ak tasawuf mooy ci maqaam bi مقام بني نك تي مقام رد كون اهل السنه والجماعه نانيو ديغي حديث موي لان حديث بي داي ريكني كون داي حديث بي داي ريكني والو يالي جي موم اي محفوظون رك كين نغي موي الامام الخطابي ابي سليمان nga xamne ci 4e siècle la fatu rahimahullah wa ta'ala jige won sarf sahih lol bok ci ñi ñi ko sharh sharh al-bukhari eh, ci alam al-hadith كذلك شرح سنن ابي داود كثير من معالم السنن الخطابي رحمه الله شو معالم السنن معناه الخطأ مننا وقد يكون آه، عبر بذلك آه، الخطأ مننا ما بيشرح حد فهني هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعداء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإسغاء إلى الله بسمعه ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برجله مننك وإلى هذا نحى الداودي ومثله الكنبادي اليوم خطابي أبي سليمان رحمه الله تعالى نعنى حديث بلي متك موي سن بروم جام بي بو ام ولايه خاصه سن بروم تبارك وتعالى داكاي ديفال توفيق جام يالله سن بروم تعالى داكاي داكاي داكاي جام يالله ييغا خن موي تخني كي تخي سن بروم سن بروم داكاي يومبالال بابار نا سن بروم داكاي سام nan lay sàmm mooy day sàmm cëram ba ba cër yi du tàbbi ci bakkaar benn ci ni si Abdul Qadir al taarifi mooy bu cee bëgg a tàbbi du euh, suñu borom day dox digganteem wala kon lu néew lay tàbbi ci bakkaar bu ci tàbbee suñu borom du ca du ca muuru suñu borom da loolu ahlu tasawuf mën na ko taarifi waaye moom ni mu taarifi moo gën a yaatu moom ni mu gisee alxataa bi nee na ahlu tasawuf xasami ne xadis bi li muy tekki mooy jaam bi bu amee wilaaya xaas nekk wali yu borom bi tabaraka wa taala suñu borom day sàmm ay cëram gët ya lay sàmm ba du xool xaram du def bakkaar tànk ya mu sàmm ko ya mu ne nag wa yaasimuhu an waaqiati maa yakrahu llah yàlla koy musal ba du tàbbi ci lu yàlla bañ lépp lu yàlla bañ yàlla ko ci musal lépp lu yàlla xaraamal wala lu ñu sib yàlla ko ci musal kadalika yàlla da koy sàmm ba loxoom biir ji def lu xaraam da koy sàmm kata ba bëdi di xool xaraam xataa bi xataa bi ne nag nee na ma wax nii addaawudi borom tulaqa bu fasir addaawudi loolu lolu saxal kadalika al-kalabati effectivement ma yi suufi sufila waaye fi li ma fi soxla moy ñi nga xamni xeyna xëy na deug deug deug ci tasawuf ta bokki ahli sayyid wal jamaa mooy ku demee ni alxataabi yi dana xataabi kenn mënu ko génn ci tasawuf nak waaye tasawuf da am ci gën a ko ndax tasawuf da am li ñuy wax ci manam al-martabatu al-khassati wal amma lolu li sa ko leeral ba sooy borom taala lool moo tax doo mën wax ni cheikh islam taymiya soufi la won ndax ci al almartabatul xaasa àggu ci way ci al almartabatul aama moom suufi la ndax boolem al tasawuf di saxal yep quatre quatre-vingt-dix pour cent da koy saxal mom ci walu karama ak xéti mbir yu yéeme yep da ko saxal moom waaye nag ci ci liñ wax al tasawuf al khass bil ma'na al khass bo nak mom meñ ci ko itlaq ci mom ala kulli al alxataabi kon da nga gis ne kon neena hadith yi moy tekki ne kon ja wàllu bi ci sun borom taala da koy sam de day dem am na jox xim sun borom taala da koy sam kon kenn ngoog ci ahlus sunnati wal jamaa keneen ne ci ahlu tasawuf wala keneen ne ci ahlus sunnati wal jamaa moy najmu mu diina xam xane bokk ni sharh al-bukhari al hafiz ibn hajar day wax la ci moom lu bari bari najmu diin tuufi nee bi mu sharh hadith bi nee na lamma kaana waliyullahi من تولى الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة وقد أجر الله العادة بأن عدو العدو آه، صديق وصديق العدو عدو فعدو ولي الله عدو, عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله نجم الدين الطوفي رحمه الله اليوم الطوفي نينا ولو يا الذي ولو يا الذي mooy ki nga دا جام daa jaam nang ko topp wamatul ko ba àgg ci daraja yi wilay khas sun borom taala daal dari koy fay eh, manam sun borom sun borom taala daal di koy fete wo di fete wo mbiram nan nan lan la ko sun borom fay moy sun borom da koo sàmm te wallahu allahu bil xifdi xifdi yalla da wax yalla ko sam won nusra sam gi moy rek da koy ci bak da koy ci def bàkkaar wala ci lu yalla bañ waye it diko dimbalé jamono ji nek kon ken ken nga ci ahlu ci ahlu sunnah wal jamaa'ah ci nga xamni yo sax li wax al xifdu ci ñi nga xam ne ñoo saxal alxifd ku ñetteel ga ci ahlu sunnat wal jamaa ci ñi dégg xadis mooy al imaam al fakihaani fakihaani rahimahu allah taala moom kadalika min sax comme al xaafis di waxee ci al fath nee na al fakihani dafa wax ni huwa maam xadis bi mi sax dafa wax ni huwa فيما يظهر لي عن أنه على حذف مضاف والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه وحافظ بصره كذلك الفاتحة دي رحمه الله كينك دابو كي أدعي أوصل في ني ني سوكن دو كي أم مسألة أدعي أوصل في أنا كم مني دفن يوم ذلك ده ينجاب أبو رحمه خم نياري خسكو ني أبو يبرد نيوم بغلا بخ بما تعميم ده ينجاب أبو رحمه خسكو فارنا في لغي لغي برا لغي لغي ني سوكن دو كي مم ميلو دي وار كم يقول شيخ الإسلام دان دفن ابن رشد شيخ الإسلام كي درء تعارض العقل والنقل بل نحن يعني موافقة المعقول للمنقول ااا أه تيري cheikhul islam dafa wax ni ibnu rushd al hafid eh, da bokkoon ci albatinia da bokkoon ci albatinia bokkoon ci falasifa bokkoon ci almalaxida batinia yi leeral nañ ñen ñoy ñen ab kuréel lañ bu yees sax euh ana lo lepp nak ci bayaanu bi ci jahmiya fi tasis bidaihim kalamiyya wax ibnu rushd lay jël ci ay bërepp diko toxal diko diko sukkandiko di sa ngir saxal gisu ngir saxal ne maam dàq jismu du du loo xam ne maalumun bi daruuratil aqliya ngir saxal li wax al jism muy ay mabaaxis yoo xam ne day lu day war la da ngay jàpp benn boo xam yàq ku la neex takfir ba sax léeg-léeg léegi-léegi bo boo waxee loo xam ne xëy na jàpp nga ne lii sama kaan yi la xëy na wala wala sama lu ma arrêté la nga koy jël di ko sukkandiku ba mel ni kii da yàgg moom da ngeen a bokk loolu day loolu day am ci ñoom lu bare bare waa ji da koy def moom ahmadu def na ko ñu bari ba ci toxale ci boroxam di sukkandiku ci ñoom boroxam yoo xam ne ñoo yàq na lu nekk daanaka waaw ku demee ne alimaam Qurtubi ak alimaam Xataabi waa ji ne ñoom dañoo bokk ci cuuj jeex mi yéya ana loolu lépp bi mu leen soxlaa bi ñu waxee loo xam ne xëy na mën naa am sax lañ wax ak lim bëgg xëy waaye xëy na gis na ni ci zahir bi nduut na lu ko arrangé moom mi sukkandiku loolu ak fenqloo gu réeral boo xam ne ñoo nañ koy faral di def moo tax may wax ne ibnu Usaymin ci daawa daawa bi ak daawa salafiyya ibnu Usaymin moo ci gën a moo ci tane moo ci gën a woyof la aw lor moo ci moo ci ndax moom dafa am léegi-léegi day doxi insaaf gu ma sëkk doonte léegi-léegi mu bi ci njawaax mu rëy rëy boo xam ne eh, maar day taal eh, eh, yi kon faakihaani mi tamit daa bokk ci ci ci ak xeebu al faakihaani nee na xadis bi la muy tekki mooy sunu borom daa bëgg wax ni jaam bi bu àggi ci am wilaaya xaasa yàlla dama koy sàmm damay sàmm ak déggam sàmm ak cëram kon da ngay gis ne ñett ñii di alxasaab yi kenn ci ahlu jamaa kazalika tuufi al faakihaani noonu lañ ko leeralee noonu lañ ko leeralee keneen a ngi ne ci ahlu sawf mooy ibnu daqiq al iid ibnu daqiq al iid ci téere boobu di al arbaina al arbainiya charh al arbain moom kadalika daa saxal xifdu googu nga xam ne ahlu sawf moo lañu wax ci xadis bi nee na فهذه علامة ولاية الله لمن يكون الله قد أحبه ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه ولا يسعى برجله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه فهذا هو الأصل فهذا هو الأصل نانا ولي برم بتبارك وتعالى ما يكين خمسة سن برم رقوي سام رقوي سام كيف ليس ما يكيرم نح بفك مم نح نح نح ما يكين خمسة سن برم سام من أجمع بالحرام بمرجع بالحرام بيجي بالحرام سام إيجي تمرجع بيجي sàmm ci njuumte wala ci bàkkaar sàmm it ak gisam sàmm mbiram boobaa nag kooku maxfuud la yàlla yàlla xam na ko kon na gis ne ibnu daqiq wax kadalika ci waxi ahlu sunna jamaa boo ko boole nga gis ne xifd gi du ahlu tasawuf ñoo ko jagoo waaye loolu moom ahlu ahlu sunna jamaa ñëpp ñëpp la kon kooku keneen la ci ñeenti ñeenti yi nga xam ne moom la ñu koy tàdd kenn ki mooy al imam ibnul munaqid ci téere ba mu taalif ko ab tawdix fi charx jaamici saxiix Serigne Ibn Hajar bokk ci borom xam yi nga xam ne ñu bokk ñu ëpp bokk na ci borom xam yi xam ne bokk na ñi ëpp luñ taalif ci xeetu islam moom Abi Hafs Sirajuddin Ibn Walaqin rahimahullahu tabaraka wa taala ci téere bu di at-Tawdih sharh al-Jami' sahih bu àggee bi mu sharh xadis bi ci sharh al-Bukhari nee na wa qawluhu kuntu sam'ahu ila axirihi huwa min al-majaz majaz nag gaa yi dañ koy dàq gaa yi dañuy dàq mu daal xam naa ne loolu moom des na ko beral des na ko beral aw waxtaan xaas woo xam ne du aju ci dara ndax gaa ñi dañoo daa bokk ci njooxu daa bokk ci bida bida daa bokk ci bida yi nga xam ne indi nga xam ne kenn mosu koo xam mooy na dàq li ñu wax majaal te daa def ki ko njëkk mooy Cheikhul Islam Taymiya ak Ibn Qayyim ak Ibn Baz ak Ibn Usaymin Ibn Usaymin sax moom saxaloon na ko waaye waaye mu da koo dàqa moom da caa fenqaloo moom ba demee ca sarxul usul mom saxal la ko foofu waaye ko dakkat cheikhul islam leg leg leg leg amna bo na boo xam ne na bo xam ne majaas am na ci iqtida siram saqim lolou du bi waye dama ko tuddaal nii waaye ibnul munaqi ma wax ni lii lépp majaas la mu ne nag yaani annahu yaxfaduhu kama yahfadhu alabda jawaarixahu li an la yaqaa fi mahlakah qaala daawuday wa qaala alxataabi mu taxal wax xataabi di ma jàngoon sànq ibnul munaqi rahimahu llahu taala nee xadis bi li yàlla bëgg wax mooy yàlla day sàmm nit bu jaamoo borom taala ba àgg ci li ñuy wax al wilayatul xaasa ba àgg ci li ñuy wax al wilayatul xaasa suñu da koy sàmm da koy sàmmale bay def ci ab ay cëram ba du ci tàbbi du tàbbi ci bàkkaar bu ndaw wala bu mag wala lépp luñ tere al mahburaat day day yu xaraam yi ña ngi ci biir ci biir suñu borom taala ko ci sàmm ba ci tàbbi sàmm boo ëllëg soo di wax ne wàllu yàlla dañ dañ leen sàmm كذا إيه ابن إيه ابن الملقن رحمه الله تعالى مملكة في كثير بدي التوضيح لشرح الجامع الصحيح لأن يعني سمر الرغي سام بدو تاب بكلن لو خمد كي يبقى لك لك لك مي مكار أك مي يلا وجراب قرن كان يقول كي كي أهل السنة جماعة تكان قرمك دي أطئين ولقين تي التوضيح ممي كذلك جسكا كان أنا ينجي أهل السنة ابن حجر الهيثمي ابن حجر رحمه الله تعالى بوقت ابن العسقلاني يارلي ابن حجر مي دانغرج ابن حجر مومي دانغرج يكرا البلقيني ابن حجر الهيثمي برم الصويع أخو البحرقة في رد على على الرافضة كذلك طيب عشيري مريبر مومي ابن حجر عليه رحمة رب العالي الفتاوى الحديثية باقي تيري مدير الفتح المبين بشرح الأربعين يعني نعم، بين شرح شرح النووي اليوم النووي نم بقي suñu borom da قبول mayoon qabul qabul goo xam ne ibnu usaymin day wax ne man téere mi ñim dasaaroo ci jullit bay dugg lu may ne li ci ëpp da nga fekk téeram bii di Riyaadu Saalihiin wala nga fekk al arbaïn loolu Ibnu Usaymiin damaa jàpp ne yàlla maanaam da ko def yàlla da ko defal li ñuy wax qabul da ko defal qabul ibnu moo tax gis borom xam-xam yi bëree bëri téeram bi dañ ko sarx moo tax daanaka ci téeram bi ci borom xam yi sarx téeram bi moom la ñu tànn ci ahlu sunna jamaa keneen a ngi nii mooy Ibn Hajar al-Haytami ci al-Fath al-Mubin bi sarx al-arbaïn bu àgg bi sarx xadis bi kazaalika nee na lii nga xam ne moom la su moom la moom la yonent bi wax ne man ahaana wala man man man aada nee na wa huwa li mu ngi ci page cinq cent quatre-vingt-seize wa huwa man tawalla allah bi taa'ati wa taqwa fa tawalla fa tawallahu allah bil hifdi wan nusra min al waliyi wa huwa al qurb wa dunow nee na xadis bi li li ci yàlla bëgg wax mooy képp koo xam ne da ngaa jaamu yàlla góorgóor ba àgg ci al wilayatul xaas suñu borom da lay sàmm sàmm googu noonu ëllëg suba nee suñu borom da lay sàmm سمبر دا يساب مبادول مبادول تام جي بكاري موضح ابن حجر الهيثمي كي الفتح المبين كذلك يعني المراد بهذه الصيرورة لازمها من حفظ هذه المذكورة عن أن تستعمل في معصية أو المراد بسمعه مسموعه نانا لجي جبل كي سيرو رجي نحن ولا يالي وخ ما يلا نسندر دوان دلي سام مترمي بدو تابي أك ما يبغى تعال ولا تجوم تجوم تلو خمدي كوي بيجاك بكر كذلك نكو إن حي وخير نقول العلامة شرخيطي رحمه الله جزيلا وذلك تدعو الفتوحات الوهمية ومن كذلك نقول لك نقول لك كون كان وجه كان نجي كان نجي أهل السنة والجماعة ما الإمام بدر الدين العيني شدنا بوب شرح بوب تدو وعمدة القاري في شرح صحيح صحيح البخاري آه، العيني بدر الدين العيني رحمه الله ده وحنا ليلا يحفظني كنت صنعه لاسمع بمن يعني انه يحفظه كما يحفظ العبد جوارحه لئلا يقلع في المهلكه سن برام دكاي سام داي سام جامبي سام يلت سو دي واخ العين كذلك يم سن برام دكاي سام دو تاج تاج بكار لي نك اداو داي رحمه الله كذلك موميت لولي لا واخ موم لا سخال ا كون ما غيس نكون دا نك نيم نيب ميم بن واخ جي لا كي ني حديث لبي تك موي لي نيو كذلك القصلاني شهاب الدين قصه تيري تيري متودي ارشاد الصاري بشرح البخاري اليوم قصر لمغتالف كلمة أهل السنة والجماعة وأجي من بشرح شرح حديث لفاني آه، ودوام حفظ الله إياه في السراء والضراء ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرطه أن يكون معصوما لا لميتك ما يسمى على ولا أحد لميتك ما يسمى على ليس مولو سم سمو قوة خمنا ليس مام du caa li mu jublu ci ne sax nag jublu wu ci nag ci ne sàmm gi daa nekk loo xam ne waajiba la nga xam ne kon même ni nga xam ne moom moom la ko alxushayri waxee moom kadalik noonu la ko waxee ahlu sunna jamaa ni ñu ko waxee kadalik moom noonu la ko leeralee kon nga gis ne kon ahlu sunnati wal jamaa kadalik ibnu rajab ci jaami' al-ulum wal hikam fi sharh xamsiin xadiisan min jawaami' al-kalim da ngay gis ne moom kadalik noonu la ko leeralee ci ne xadis bi la muy tekki mooy lan mooy wàllu bu suñ borom tabaraka wa taala da koy sàmm sàmm koo xam ne day dox digganteem ak def bàkkaar wala def def njuumte goo xam ne moo ko yëb bàkkaar wala mooy yàlla ni ko ahlu suuf noonu la ko noonu la ko ahlu suuf noonu la ko ahlu sunna ñëpp di waxee comme ni ko leeree ci waxi ibnu daqiq al iid ak waxi najmu diin tuufi ak waxi alfakihani ak ibni xajar kadalik wax na ko alxataabi kadalik alqasalaani ak ibnu mulaqin ak eh, albulqini même kadalik wax na ko ak ñeneen ñu du ñoom dañ ko tànn rek kon loolu ñu ci jànge mbokk yi mooy xadis bi ci jëmbam xadis bi ëllëg wax loolu sax sharia ndax borom taala daa wax ne moom day sàmm wàlli wàlli bi amee wilaay xasun borom da koy sàmm sàmm googu am na sharia sàmm gi am na dalil problème bi kay mooy léegi nag ki bëgg jël sàmm gi daal ne kon ki képp ku wax ne képp ku wax ne wali waliyu maxruud léegi da nga wax ne waliyu maxsuum la kooku tuuma la euh, kon leer nañ kon ginnaaw ginnaaw ardu boobu leeral ci ne kon sàmm gi ci jëmam lu sax la ñu ngi ko attan lu ko sax ci xadis ahlu sunna jamaa yi saxal kadalika ay sëriñam saxal ko ci ne walu bu jëm bu lay xas suñu borom da bu fekke ni lazim la ci ko saxal xifdul wali euh moy ne saxal na ko ma'sum la kon na jàpp ne ahlu sunna jamaa ak ay férida fi ñu moom ñoom saxal ni al awliya maasumuuna kon hunaaka ma hunaaka maasumuuna anbiya kon mbokk yi loolu kon wax wax wax la ju taxawut boo boo kon loolu benn dalil beneen dalil mooy laaj yooyu nga xam ne mooy ci suratul xijr sun sun borom taala di wax iblis di wax na ko إن عباد ليس لك عليهم سلطان لا لي يجوي لين فز لفت كينه لين يجانغت كورك أي سنتال غير ليرك لا يجي دليل مغلب بوحنا ليتا كينه الأولياء محفوظون لولا نقدر نجيب كم مفسرون يكلم اليوم الطبري اليوم البخاري اليوم القرطبي اليوم الكثير اليوم أبي حيان البحر المحيط تفسير البيضاوي اليوم البيضاوي كتفسير بوبو كذلك ابن عتية كا المحارة وجيز أك ابن الجوزي كذاب المثير شوكاني كا فتح القدير